asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokku daara maa leen di nuyu di leen ziar seen mbokkum taalibe Cheikh Ahmadou Gaye maa leen di nuyu seen mbokkum taalibe bi newoon foofu ba tey mi ngi fi di leen ma dégg suñu mbokkum taalibe bi nekk booru luga boo xam ne dañuy ni dafa jéng ay donga ñu jàpp ko yóbbu ko arrêté ko ak seen waajur du jéng tegale ay tànk la ba xale bi mënta génn ci biti ndax mu mën a ndax mu mën a jàng waaye ma leen xamal ni alxuraan de. ndam rek lay am waaye ñun de buñ jaaxlee amuñ fuñ jëm waaye nañu wér ci yàlla rek dénkaat dénkaat yàlla suñu bopp lépp dina baax incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.